defalaale benn video vite fait xam naa nag dina nekk ak euh, kii comme mbedd bi mooy jub nii xam nga fii mbedd dafay génn fii moom priorité à droite ngay maye ñii dañuy taxaw gisoo bande bu ñu leen tegal mais si sama ginnaaw amul pano mais xoola pano bii dañ ko fi teg bii nag dañ ko fi gën a leeral xam naa li muy am accident dafa bëri gis nga moom lay romb noonu moo bu ma doon ñëw fii am oto buy génn fii fii may jàdd dama koy may mu jàll ba pare ma doog a jàdd comme damay jàdd du am problème mais bu doon damay jubal dama koy may moom mu jàll ba pare ma doo a jubal loolu laa doon bëgg euh, kii comme vélo laa yor du am problème <laughs> mais c'est juste pour bëggoon lu ma expliquer waale priorité à mooy tableau bi ngeen di gis te mu am courant bi lu am important la si kuy dawal Europe parce que tubaab bi duñ ko maye koy njëkk tableau bu bleu bi passage euh, à piéton la gis nga fii nag biir hôpital la looloo tax mu leer nii pour gars yi defaale si ay lampe pour gars yi bañ a def ay erreur gis nga oto bee mu taxawee may may kooku mu jàll parce que kooku mu am priorité waaw kon loolu laa indi woon tey c'était juste benn vidéo bu gàtt pour expliquer waalo gis nga panneau bii ngeen di wax bi moo am tram yi parce que tram bee ngi nee taxaw ça veut dire ne si kanam tram sport yaa ngi fi nii moo tax waaw c'est juste euh, en même temps dama bëggoon expliquer waale wanaale nag euh, panneau yi ñuy gis si photo yi ça existe si biir tali bi panneau interdiction d'accéder là-bas waaw kon nag euh, tenk ba yoon ma indiwaat yeneen vidéo dama nekk si hôpital yor vélo nii nag moo tax si yoonu vélo bi lay jaar <laughs> jaa ngeen jëf abonné si chaîne bi pour bu ñu dugalee ay vidéo ngeen mun ko gis gis nga voie sans issue moo nekk nii si suuf ñu def si dix xam nga fii moom ngandul donc dix kilomètres rek nga war a raam sax la wax raam la raam waaw euh, maa ngi nii daal comme vélo laa yor nag voie amul pour auto voie sans issue la amul yoon mais man am na yoon ndax vélo laa yor jaa jëf ba beneen yoon